Nous daal dem une information pour xam ne tam à la dernière minute mbokk la cour d'appel de Ziguinchor mujj na rendre exactement son verdict dans l'affaire de la tuerie euh, Boffa euh, Bayotte ma ni ko niki li que mu le 29 août la cour d'appel de Ziguinchor rend exactement verdict bin nga xam euh, sénégalais yi doon nañ ko daal di mu événement tragique bi nga xam ne amoon foofu région bu Casamance Omar Empois Bodian hein, Omar Empois Ampuy Bodian donc pour moi ñu daal di koy condamné euh, woon euh, à réclusion euh, criminelle à perpétuité moom itam mujj nañ ko dadi acquitter dadi daal koy li nga xamne ne que moo di en revanche René Capin Bassène mom ba tey ñu koy daal di euh, à perpétuité euh, euh, ayant été confirmé par la cour donc libéré nañ ki nga xamné que modi di Omar Ampuy Bodian euh, procès en appel bi nga xam tam tidi wona niki ni ki tey ji foofu euh, mardi bi 27 euh, août nous avons marqué face à face entre les euh, accusés et le juge en attendant euh, René euh, Capin Bassène journaliste Omar Ampouy Bojan, associé mouvement des forces démocratiques de Casamance du MFDC Nous avons dit que nous juin 2022 seen ngiiru dund exactement si massacre bi amoon sulaanu ko Boffa Bayotte amoon ni ki le 6 janvier 2018 boobu dee affaire nag daal di toll si li nga xam ne que moo di 14 euh, daal si ñàkk seenu ko bakkan si benn ko forêt bi nga xam tam nekk fa sulaanu Guinée Bissau modi daal di euh, li nga entraîné entraîner la condamnation par contumace bu chef de guerre bu César à toute euh, moom itam tam tey dit qu'il ko est en fuite euh, yeneen accusé yi jotoon li nga xam ne que moo peine avec sursis pour détention illégale d'armes manam dont yoon arme yoo xam ne itam autorisation yeneen diis yi nag ñu daal leen li nga que acquitté charge yi nga comme ne dit leen ko doon daal di association de malfaiteurs la participation à un mouvement insurrectionnel insurrectionnelle ben, et la complicité d'assassinat au cours du procès en appel ministère public bi mou dadi di requéroon daal di si li nga xamné que euh, digganteeg Bassène ak Bodian ay charge yo xamni ni itam euh, charge yi diis na lool loolu nag moo leen daal euh, reconnuire ñu dadi amal à perpète malgré les efforts de la défense pour prouver l'innocence de leur client verdict final bi nak seetlu nañ ko Arfan ki nga xamné que Modi Omar Ampuy Bodian mu de recouvrir exactement sa liberté il est libre euh, pour le moment Euh, cependant, euh, met fin à cette procédure euh, judiciaire qui a suscité de nombreux débats sur la justice et la situation à Casamance si fii nag euh, Omar Ampouy Bodian libéré nañ ko qui dit René Bassène ba tey koy à perpétuité. <coughs> alors euh, damay que j'allais d'abord les familles des victimes ñoo ñoom ñoo gaañule ñoom ñoo perdre seen doom yi ci cette théorie de Bofa Bayot boo xamante ne xewee na en 2018 on hein, donc euh, boo xamante ne ça a secoué toute euh, la Casamance hein, hmm, boo xamante ne une affaire très très très difficile à dire hein, parce que c'est tellement aussi complexe que ça donc euh, tey amaana ci côté boobu mën nañu ne alhamdulilah ci beneen bi. ma remercier aussi mon grand frère journaliste euh, Babacar euh, Touré. Mm. Mandjou, mm. bu Kéwélo. Mm. boo aussi un sonn dossier aussi euh, le grand avocat et l'international maître Ciré Clédor Ly boo un avocat de la défense mon foofu ci Ziguinchor sor, mon donne plaider donc pour la libération des supposés qui ont été diko félicité ci liguey bu am solo bobu bu mu def euh, fofu ci Casamance mom maître Ciré Clédor d'orly alors euh, Fallou affaire bobu affaire euh, bu métti la boo aussi on parle des morts hein, des morts des gens froidement assassinés dans une forêt comme quoi que de mon outil bois bois sèche donc ay mat ñu fekk len fofu ray len bon selon la version hmm. donc qui a été révélée même si ba nous avons dit ñu ngi ni que que euh, nous, ci mbir notamment le gars que tu as euh, euh, qui a cité que tu as cité Omar a nous Bodian dit mm. mm, que il a retrouvé sa liberté mais il y a un autre journaliste hein, un confrère qui s'appelle René Capin mm. hein, donc Bohamantene xamantene que mu ngi ci bi ah, plaidé pour son innocence ba que nous mu ngi plaidé ni comme quoi que ci leuf ci mais dossier bi même même même même si même si euh, euh, ñu ko doon ah. ne mais ko doon ni que mom dafa bok ci ñu doon ñu doon euh, ñu doon pour ñu ray ñu mais xam affaire bi seigne comme yoon wax na ci ñun dañuy ci franchement c'est vrai que metina mais suñu justice la ñu war a on est un pays de justice on a un pays qui a une justice donc euh, dañuy wóolu cette justice là donc justice boobu moo ne boo jàppee ni que dañ laa tooñ mën ngaa def recours mën ngaa utiliser les voies euh, yo xamantene ne yoon may na la ko pour nga yow tamit mën a am euh, recours pour nga mën a seetal sa der maintenant ñàkkul tamit yoon dafay def liggéeyam. Hmm, franchement affaire bo xamantene parfois boy wax sa do bëgg wax parce que bo xamee eh, Casamance lu mu bindoo. Hmm, hmm, donc ay nit ñi dem bay wax ay ay rebelle eh, sank wax nga ay nit ñoo franchement man dama euh, donc euh, affaire bi justice. Hmm. donc justice voilà justice moko meuna a pas Arfan pas kenan mais des fois aussi non non non nous ah, c'est des manipulateurs. pour le respect des gens unis ñuy je crois que la paix euh, exactement ba s'il vous plaît. ok s'il vous plaît xam nga am na ñoo xamante ne ñu ngi seetaan bàyyeekoo Casamance. ba mm. léegi. Mm. on nous regarde partout dans le mm, monde. il faut ne serait-ce que pour. ne serait-ce que pour le respect de ces gens. mais analyse analyse analyse rek. ne serait-ce que pour le respect de ces gens là. ok il faut il faut pas nga tudd ay tour ay Madiambal Diagne ay ñeneen. déedéet l'affaire euh, l'affaire l'affaire pourtant citoyen de la Casamance. mom japp na ni la paix bu Casamance da ko préoccuper exactement jàmm yi Casamance. xam nga jàmm yi Casamance nekkul ci loxo nit ci loxo yalla la nek mais nit mën na see liggéey déedéet déedéet ce su ko mënoon su ko nit mënoon def l'affaire là a duré combien de temps. le conflit non au-delà si une affaire non non non non Dédé, fallo. je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord mais au-delà si affaire bi il faut pas faire cette affaire là une affaire de de récupération d'argent de fonds. ah bon oui am nañu def l'affaire de Casamance là entreprise de de de comment adresse d'enrichissement oui dañuy dem ci l'autorité suprême ne leen mën naa régler l'affaire là en 100 cent jours wala en trois mois l'autorité jox la tous les moyens nécessaires Ablaye Wade ñaata ñoo ko doon lëre ci ci jamono boobu les supposés entre guillemets les monsieur Casamance ñu doon ñëw ci Ablaye Wade ne ko ñun mën nañu régler affaire boobu ba ci jamono Macky Sall y a des monsieur Casamance les cadres Casamance entre guillemets xam nga bëgguma xuus ci loolu ñu defee ko une affaire d'enrichissement

la le dossier Casamance ñu bari ñu ci doon wax ay marto la ñu xamuñu dara. ci affaire boobu Ousmane Sonko na da maîtriser. Ousmane Sonko da ko mu wax lolu musul Macky Sall. mais musul wax ni nous ko maîtriser de. musu ko wax avant il faut pas manipuler. le gars il a dit sank ci commentaire yi ci <laughs> bul lu mu wax franchement j'ai essayé de te défendre mais franchement. <laughs> wax euh, c'est comme si on dirait que le gars il a raison. Non, non, fallo il ne faut pas être <laughs> hypocrite. Ousmane Sonko n'a jamais dit qu'il qu <laughs> maîtrise l'affaire de la Casamance. Personne. Pareil dans la wax. Ah, pour liguer c'est Mais waxul qu'il le maîtrise. Enfin, pour yo Peut-être il y a un problème de français. Mais où, mais on sous Maîtriser ne veut pas dire que je suis prêt pour d'accord pour liguer avec yow ci voilà, tu as un problème avec le français. Ah, Ousmane Sonko n'a jamais dit qu'il maîtrise l'affaire de la Casamance. Il n'a jamais dit. Donc, et il ne le dira jamais. Donc, comment ça Tu sais pourquoi Il y a des Dakar, qui ont affaire Casamance. Mais nous, qui Casamance, Casamance, ils ne parlent pas de cette affaire-là. Parce que ñom ñoko dundou. nous, nous, lo dundul mëno ko xam. Lo dundul mëno ko xam. C'est comme si les gens qui sont à Dakar qui taxent les gens qui sont à Casamance de rebelles. Ah bon? Parce que Mousso Fadem, comment les gens. Oui, la Casamance c'est un carrefour. Il y a toutes les ethnies là-bas. Il y a des Khalpolars. Non, Khalat connaît Dakar, à Casamas. Il y a des Mebou. Il y a partout. Alors c'est clair. Maintenant, il y a au bout de Hamo Casamas. sont à Dakar. Voilà ici, Dinan. Non, Casamas, nous sommes à mon Mofanek. Nous sommes à Ili, nous sommes à Bofademe, dans les Tu vois? Mm. oui la politique de diabolisation c'est ça c'est la politique de diabolisation on l'a vu vers la deuxième vers la fin de la deuxième mandat de Macky Sall cette diabolisation les casamans, c'est là di leen tëj ça. les noms à son ancien, nous raisonnons un peu de Casamance ay Badji sànq ko fi ay Koli ay Diédhiou ay Sonko Macky Sall nous la doon xeex di leen dugal ci ça. Parce que l'eau, est diabolisation. Il ne faut pas diaboliser une localité. C'est là où je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas diaboliser une localité. Alors, c'est clair. On l'a vu ici, qui, qui diamant On a diabolisé, caricaturé la Casamance. Alors que Warul Demeni, quel hmm. genoufi qu'un ah. ont mis de caricaturer les gens de la Casamance ñooñu amaana ñoo leen gën parce que ont sac nous duñu fen duñu des dara ils sont dignes de leur gagne-pain de ce qu'ils gagnent la Casamance les Casamance même Bouygaye gagné il est fier de ce dërëm là parce que Mom comme la mais contrairement à ce que je ne veux pas dire

ñoom monsieur yi ñuy wax ni ni je suis pour la la paix en Casamance dama ne dañoo sàcc sàcc suuf ba dugg Casamance. alors c' est mi ngi noonu. zone Oussouye bi di fa bëgg sàcc suuf. alors mi ngi noonu c' euh, ñu daal di ñëw si leneen daal di koy terminer peut-être suñu waxtaan Arfan par rapport ak euh, ki na xam ne que moo di la